papa bari na waaw kooku moom xanaa dañuy takk fit bi rekk wax mais man yu ci demee nii sax yu ci bari duma ciy bëgg a wax ndax ku ma xam ku nekk xam nga sama diggante ak sam kon wax ci moom du yomb mais lii day dafa doon loo xam ne force la ci man waaw moo tax sam papa pour gàttal rekk ñu ma mën a wax ci moom mooy woy joloowuñu gërëm képp kuy njabootu njaga mbay rekk gërëm nga ko même bu dul ay njabootam sax jaambur ñi la mu def ci ñoom moo ëpp lu mu def ci njabootam kon li ñu mën a wax ci moom mooy ñun day gàtt fan rek lañuy jooy ci moom mais ñu ngi koy sant bu baax ndax doom la muy sante waay juram mooy yar bi muy def ci moom fulla ji muy def ci moom jom ji muy def ci moom ak personnalité bi muy def ci moom te loolu macha allah defe naa ni mu ngi ci njaboot gi kon dañ koy sante yàlla di ko ko sante moom di ko ñaanal nag fu ñu toll suñu xel di jóg ci moom benn yoon kooku tëdd ba guddi nga fekk ko muy neloo sax nga yee ko ne ko waxal ci moom wax ci moom ndax li muy wax ci moom lu mu dund la sonalul njaboot benn yoon fitnaalul njaboot benn yoon wëriloowuñu it lenn lu mu am ci njaboot la ko def particulièrement nag man ndax man fii ma toog fi ngeen ma fekk ni tey moom moomu fi dëj mooma boole ki may sëyal ba yàlla def tey ma am ci njaboot kon sama digganteek moom leneen la ma koy ñaan rek fu mu tëdd yàlla na suuf oyof ci kawam mu rëcc lu mu doon def ci àddina la la <laughs> de pour mu wax la daanaka maa ko mujjee yëg ndax li tax ma mujjee koo yëg mooy kenn ñemewul woon a wax kenn ñemewuma ko woon a wax parce que man sam papa jour bi muy làqu dama faa dem. jour bi muy làqu dama faa dem muy jour samedi duma ko fàtte ma ànd ak sama borom kër bi ak sama doom bu ndaw ak papa laay sama mag bu góor fekk dafa yendu si woon sama kër hmm. léegi bu mu yendu see sama kër di ñibbi ma ne ko ah man de boobu ba léegi maa ngi bëggoon a seeti sam papa ndax dama faa xaw a gëj mais comme tey dama amoon ay gan damaa bëgg a bàyyi rek ba beneen yoon mu ne ma déedéet comme wax nga ne dangay dem ba pare ñëwa rek ñu dem ba tey loolu ci ndimbalu yàlla la ma jóg ànd ak moom ak sama boroom kër ak sama doom bi buso boobu mu ngi nekk xale ñu ànd dem samedi boobu jour bi ñu yéggee ñu ngi fekk sam mu tëdd di nelaw ci sama néegu bàjjan Faat pikin Pikine sam bàjjan ne ma ma ñëw daal di nuyoo daal ne ko bàjjan sam day nelaw fekk muy julli saan moom mu ne ma sa papa de ci suba ba léegi mu ngi tëdd di nelaw nelawam yooyu xam naa bu la déggee dina jóg noonu mu dégg ma may wax le temps may nuyoo Kumba Mboor jóg na ba sol yéreem jour ba mu ngi sol benn deux morceaux vax mu daal di jóg ñëw ñu nuyoo toog waxtaan li ma fa nekk yëpp mi ngi waxtaan ak man di expliquer ak man yeneen sax yoo xam ne day gudd mais ñu gàttal rek ba ma war a ñibbi daal di dugg ci biir daal ne ko papa man dañoo ngi ñëw ñibbi parce que timis passé na te man damay defari reer te yow xam naa sama digganteeg yow su ma la gisee duma bëgg ñibbi te damaa war a defari reer mu daal ne ma man sax dinaa fa ñëw incha allah dinaa fa ñëw mu toog ci kaw lal bi busom mi nekk ci ginnaawam di tëb di ko kii man ma toog ci suuf sama borom kër bi toog ci wetam mu di ma ñaanal. li muy ñaanale ma toog tàll sama loxo muy ñaan ba ci yàgg mu ne teg li may wax papa Blaye mën na ko seede El bi mën na ko seede ma siggi xool ko suñu ñeenti bët yi tase ma daal di sëgg daal ne sama papa de xam naa xëy na li ma sol ak ni may sañse te moom dafa bëgg ko sañse loolu la may xoole mais xam nga loolu doo ko xalaat ñu tàggoo ñibbisi muy mois de février muy taw bi ñu ñibbisi ma duggee ba ci oto bi loolu dafa des ci man may xalaat sam papa li ma lu ma doon xoole noonu ba xam lan la mais man xam naa du dara xëy na buso mi doon tëb ci kawam ak yooyu ma naan ko toogal parce que kii dafa feebar ak yooyu xëy na loolu la may xoole ñu ñibbisi léegi bi ñu ñëwee ñu génne ko tele muy la nuit des arts benn émission bu ñu doon def may seetaan ba ci yàgg ma ne Soda ma jox ma sama téléphone ma woo sa maam tooñ ko ak émission bi koppateem mag yooyu mu jox ma ko ma wax ak moom lu baree baree bare bare daan ne ko papa man dama doon too dama ñëw rek di seetaan télé ñu génne la ma ne naa la woo daal lay tooñ maa ngi coupé mu ne ma ok sama appel man moo mujj ci portable am man la mujjee waxal téléphone ku ma mboor xam na ci dara bi ñu tëddee xam naa ci guddi gi la yàlla ñëw bi yàlla ñëwee itam man maa ko mujjee yëg te man ni ma ko yëgee dañoo xëy sama kër jour ba ma daan taal euh, wal fajari di déglu boobu papa ngañ mi nga fa mais jour boobu dégluwuma rajo ndekete suñu waa kër gu mag kër gi may sëy sama wujju peccar gi ak sama goro yi ñoom yëg nañ ko te néeguma ko ñoom ñu jóge kër ga ne nañ daw ñëw wax si ma ko bi ñu ñëwee bi ñu sonee ma ubbi leen kenn ki dafa jonkoon ci suuf daal ne Aïda Mbaye yëgu ko de ñu daal di dugg si ci biir ma ne leen yenn lan ngeen di dox heure bi mbaa jàmm la ñu ne ma sama goro bu góor moo feebar bañ di ko yóbbu hôpital ñu di ko wax si elaaj Hadj loolu lañuy ñu wut sama kër ma ne ko comme que ñii nee nañ sa papa dafa fe anam ma ne leen mu ngi ci biir ñu ne ma yee ma dugg yeeko mu jóg nekk ci salle bain bi di sël mu ma ne kon man naa dem ci beneen douche bi dem sangu ñi may dugg ci beneen douche bi mu woo ma ñëw mu ne ma defaral ma kafe ma dugg ci waañ bi di ko defaral kafe daal di dégg mu ne allah akubar daal di toog ma dawee ci waañ bi daal di ñëw ne ko lan la mu ne ma du dara ma ne ko dara la kay ñi nañ sa papa dafa feebar. yow solo sa mbubb nga dem hôpital lu dul nga toog na allah akubar ma fekk ko ronkoñ yi di sotteeku ma ne ko lan la lan moo xew sa papa dafa gaañ mu ne ma déedéet léegi demal nga sangu ma sax sama yére ñu dem ma ne ko déedéet yow duggal sangu daal ne ñooñ nañ leen dem kër ga ma xam lan moo fa xew ñu ne ma déedéet comme yaa moom rek a nekk ci kër gi xaar ko bu dee dem ngeen ànd moo gën yow ngay dem bàyyi ko ci kër gi muy jaaxle ma di dugg ci douche bi sangu mais ci kaw noonu may def noonu sama yaram yëg na ko sama bi ma sangoo ba pare maa ngi ubbi sama armoire pour seet yére bi ma sol mais mënuma gis yére maa ngi jàkkaarloo yére yi soo de sama doom bi ne ko kaay ma fi yére bu ma sol mu génneel ma yére ma sol ko ne leen man maa ngi dem kër ga fekk na ci biir loolu téléphone bi day sonné bu ñu yëkkatee téléphone bi rek mu coupé. papa Ablaye ne ma boobu man la mais boo nee allo duma la ko jëmee wax ndax xam naa la ma sol sama yére daal ne sama doom ji kinne ne ko ne demal sa kër maam nga xool ma ndax sa maam moo feebar wala lan moo xew parce que man daal affaire yi mi may bëgg a dépassé demal nga laajte ba xam ne daal di génn dem kër maamam ñu ne ko boo demee ne sa yaay rek sa maam jool moo feebar mu ñëw ne ma waa sam maam jool daal yaay moo feebar ma ne leen léegi man maa ngi dem kër ga génn na El Hadj fekk ma ci yoon bi man maa ngi dem su ma demee ba kër gi dinaa xam lan moo xew ndax man affaire yi jaaxal na ma ñi ma waaxoo di dem mu daal di sol moom daw topp sama ginnaaw léegi bi ñuy dem ci yoon bi lañ taseeg sama benn jëkkëru xarit muy xëy yore otoom am fu doon dem El Hadj Faye nuyu ko daal di continuer man ma sëgg nuyu ko ne ko ana awa mu ne ma awa mi kër ga waaye awa de daf doon wax sax day xaar ba xam paa bi Touba lañ koy yóbbu wala Tiwaawan lañ ko yóbbu mais foofu man ko ban paa la ñuy yóbbu Touba ban paa la yóbbu Tiwaawan foofu laa gëjee xam lan moo xew moo ma dugal ci oto ba Pikine sama xuru naa sama buntu kër papa foofu laa ximbali ko ambaaja nday mbay laa gis mu dugg ci oto bi ñëw toog nga siggee xool ko ne ko bàjjan lan la man sam papa mu ne ma wàccal ñu yéeg ci kaw ma ne ko lan laay def ci kaw ne sam papa anamu mu sa papa mu ngi hôpital ma ko yóbbu leen ma hôpital mu ne duñ la yóbbu hôpital ndax buñ la yóbbu hôpital ñaari néew lañ fii jële ma ne ko déedéet mais man mënuma fanaanee waxtaan wax ak sam papa xëy ñu ne ma deena mënuma koo gëm nañ ma yóbbu bu ñu bañee ma am yóbbu ma opitaal moom moo ma wax dëgg moo ma yóbbu opitaal demee bi ma wàccee papa laay moo njëkk a ñëw bi ñëwee def ne waa ki doon moo ko indi fii ma ne ko man maa wax damay ñëw nañ ma woon sam papa mu daal di wëlbatiku ne man duma la woon sam ma wax ak pap bu mu ne man tam duma la woon sam sama mag bu góor maar mbaay moom tam yàlla na ko yàlla yërëm sama doomu pap góor a mbaay boo xam ne moo doonoon sama taawu papa nekk ci kër ga moom moo ñëw daal ne ma da nga bëgg a gis sam papa ma ne ko dama bëgg a gis sam papa boo ko gisee doo def dara ma ne ko déedéet duma def dara mu ne ma nañ dem ma wan ko ci laa àndeek moom sama bàjjan nday mbay topp sama ginnaaw biñ demee mu dem ba fi sama papa tëdd mu muuril ma ko ma xool ko mu mel ni kuy nelaw ma sëgg fóon ko mu ne tekk mu tëdd ci kawam foofu laa gëjee xam nan lañ ma génnee foofu mu doon nag lu metti ci man doon lu may dund ba fi ma toog papa amul benn jour amul benn ay minutes sax yoo xam ne dinaa toog te du nekk sama xel parce que dama doon xalaat bis bu génnee àddina bàyyi ma fi man nan laa koy dunde ndax nu mu meloon ak man mais nag maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax ndax fi ma toog moo ma fi dëj te it maa ngi sant ndax barkeem. maa ngi koy gis bàyyee ma nag ñu baax ñu ma mën a téye ñu ma mën a jàppale ci côté bu nekk ndax ku ci xamoon sama diggante ak sama papa rek xam nga yéene bu mu amoon ci man xam nga nu ma téye woon ba tax na ku ci nekk yaa ngi may jàppale ci li nga mën pour bañ ma vidde boobu mu feeñ ci man